dafa am ñu nekk seen ginnaaw du ñoom rek dafa am ñu nekk seen ginnaaw parce que ndaw si biñ ko jàppee neen taxul ñu bàyyi ko am na lu tax ñu bàyyi ko li tax ñu bàyyi ko nañ ko gëstu dinañ ko xam. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy reveniraat ci jeunes sénégalais yi nga xamante ni décidé nañ entreprendre.

mu dooleel leen financer leen ba noppi protéger leen ba ñooñu mën a yaatal seen i bërëb liggéeyukaay recruter yeneen jeunes yoo xamante ni dañu toll ci wutum xëy dëkk yu développé yépp noonu la ñu def dañuy protéger seen entrepreneurs particulièrement ndaw yi nga xamante ni dañu osé teg dara kenn ci ñoom mi ngi tudd Serigne Mbacke Gueye juddoo ginnaaw raay ci banlieue bu Dakar tàmbalee taqale ba suñu borom may ko mu dem ba créer entreprise di employé doomi Sénégal. comme li daloon Mouhamadou Moustapha Ndiaye ñu fexeel ko ba tey entreprise am bu ñu moywul ci fayit la jëm dafay daanu ndax arnaqué nañ ko ci lu ëpp un milliard de francs CFA daañu ñëw ci mbir yi nu mu demee ak naka la ko kóoluteem dugalee ci li ko arrivé tey li tax genre vidéo yi intéressé ñu mooy ñu mel nii dañ leen war a aar ndax bu dul moom sax am na ay employé yu baree bari yoo xam ne seen wërsëg ci loxoom la ko suñu borom jaaralee te ñu yor si seen njaboot kon bu daanoo jàpp leen ni famille yu baree bari dinañ daanu ñoom itam ànd ak moom. ñaaral bi mooy moom kaam leçon pour ni dañu décider ubbi seen entreprise ci biir réew mi di soog a door xam ñun Sénégal ci ban réew la nekk ak la pare pour damm say tànk boo ci yoon ngeen très attention bu baax a baax ci yan doomi aadama ngeen di jëflanteel ndax dëkk bi dafa bari ay kayma yàgg nañ ko wax mais la confiance n'exclut pas le doute même booy collaborer ak ay doomi aadama teg ko ci ay base yu wóor ndax bés bu ñu lay wor doo ko sax foogee daf lay jëlee kaw loolu moo dal Serigne Mbacké Gueye te ñu war ko dimbali ñun bi ñuy def vidéo bii xol bu tooy lañ ko defee ndax dañ ko yërëm ñi ko gënoon jege ñoo ko wor te ku nekk ci yéen war cee jàng moo tax teelu leen bu baax vidéo bii ndax bu weesoo histoire bi ko arrivé leçon la pour ku nekk ci ñun dañu ñëw d'abord ci parcours waa ji mooy kan ci lan lay yëngu ak fi mu tambalé serigne Senegal Gueye ben ndawu Sénégal bu dëkk Pikine ginaaw ray juddo fa yaro fa magge fa don takalé kum bépp doomi banlieue mu daan xëy kolobaan nek dans le secteur informel di jaay ay pièces détachées mu dal spécialisé wu ci ñuy woyé gros porteur camion yu mel nak bo mënti gis suñu borom daf ci def barké yalla wërsëgal ko muy collaborer ak ay transporteurs yu baree bari di leen fournir lepp luñ soxla ci pièces mais batay mi ci secteur informel bi di liggéey Colobane. maa ngi métier Colobane maa def sama profession maa def mécanique mais poids lourd ak engin. métier commence commencé générer xaalis bu de bari di gis bu a baax am itam yeneen ndaw yoo xamante ngi ne li gën formaliser activité créer entreprise di fay aussi am possibilité gagner yenn marché parce que pour postuler ci yenn marché yi mo xam marché public wala privé faut nga am entreprise bu formel. sama ben gestionnaire sax bu nek bu nekkoon ci ben banque fi moma wax ne ma yow sa entreprise bi du entreprise bu ndaw parce que trois deux mois yi ma yoré ce compte def nga fi chiffre d'affaires 100 quelques millions pourquoi pas nga ubi entreprise ma ko allez-y mu ne ma dina la bolé ak ay expert comptable boo demee mais ay audit ay notaire nga ubbi entreprise bi après ñu boole la ak ay comptable ñu gérer la comptabilité ma ko ok. ci noné la créer entreprise bi ñu SMBG di diminution Serigne Mbacké Gueye mi ngi ko créé le 26 avril 2013 registre de commerce bi mi ngi ni ak ni bi muy ben SARL société à responsabilité limitée spécialisé wu ci lepp lu jëm ci njaayam pièces détachées waaye tam jënd ak jaayaat bépp jumtukaayu auto entreprise bi di évoluer. muy collaborer ak ay marques yu mag yu ci mel ni Volvo Renault Mercedes Scania di defar ko oto yi ñu gën ràññee ci àdduna bi. ci biir réew mi aussi muy collaborer ak ay sociétés yu mag a mag ñu ràññee ci CSE Bolloré ak ñeneen. entreprise bi di évoluer di recruter ay doomi réew mi ci ay domaines wuute moom itam seen Mbacké Gueye di tukki ci ay réew di wut ay partenaires boole ci di importer ay pièces détachées juste pour satisfaire ay clients am. période Bobu, ben entreprise prestataire moko ko gérer comptabilité di gérer dugg ci société bi SMBG. ñi ngi gérer même chèque yi suma dé voyager kon man damay voyager lu bari suma dé voyager dañ koy signer chèque yépp chèque barré chèque jox ko. mu recruter ngir mu ko comptabilité entreprise bi bi jural yi ND. dañuy joxe seulement ay initialam parce que ba tey dossier baa ngi ci wàllum yoon atte guñ ko daañu ñëw ak fi mu mujjeeg waa ji mais ND boobu noonu moo ko jàmpaaka ginnaaw gannaaw ba ko wóoloo dénk ko lépp ndax dañoo dem ba benn jamono gis ni SMBG li muy perte ci xaalis dafa bari lool te kenn xamul lu ko waral. ñu gis ne ñun tout le temps dañuy nekk ci station de trésorier duñu am xaalis te loolu daawuñu dal ma dem seeti ay kilifa ñu leen dama def audit bi ma leen waxee ñu ak ay expert comptable yu certifié jël leen fay leen ñu ñu ko pour certifier compte yi bi ma ñëwee commencé trois bilans dernières années yi mu jox ñu jox ko liggéey liggéey liggéey ba ko livre comptable peut-être kon auditer te bu audité daanu mu bañ ko joxe mais finalement mu dem ba joxe yépp auditeur yi pare génne turu un milliard trois cent vingt et quelques millions yoo xamante ni waa ji mënu ci justifier dara dara. ñoo ko déggandoo waa ji dépensé na un milliard trois cent vingt millions yoo xamante ni mënul wax fan la jaar. ci la nag Serigne Mbacké Gueye déposé plainte le 6 juillet bi ñu weesu section de recherche bu Colobane ñuy toppee ND détournement faux et usage de faux en écriture de commerce fraude ak li escroquerie blanchiment de capitaux abus de confiance et complicité lu tax ñu ne complicité daañ ci parce que NID boobu nonu da doon kompaloo ak jabaru Serigne Mbacke Gueye moo tax moom Serigne Mbacke Gueye mënul parce que ñi ka jege woon trop nyoko Don doon fexeel ci revenir mais li gën grave ci mbir yi mooy dafa dem créer ñetti entreprise yu bokkul moment bi muy liggéey ak Serigne Mbacké Gueye ngir di ko concurrencer ci suuf est-ce que yéen ngi mesurer gravité li waa ji def non seulement dafa sàcc xaalisu SMBG ba noppi créer ci yeneen entreprise ngir daane leen te ba léegi moo ngi fay liggéey ñu koy fay. ci laa xam ne waa ji créer na entreprise boo xam ne même ñun li ñuy def teg-teg lay def te moom mi ngi nekk si ñun di fayeeku salaire. Je suis responsable. Je suis responsable pour la entreprise parce que je suis en train de me faire des choses. Quand on a envoyé des demandes de fourniture pour les marchés, on a une copie. On a offert une copie pour envoyer une copie. Si on a 100 000, on a 90 000 ou 80 000. Si on a 50 000, on a 40 000 ou 38 000. L'île NDDF. mais lan moo tax ñu gën a jekku Serigne Mbacke Gueye ndekete ND ci boppam da doon déggoo ak soxnaam xamuñ nag fan lañ xamante duñ ci sori mais jàpp leen ni bi ND di def ay njuuj njaaj ci biir entreprise bi mi ngi déggoo ak jabaru Serigne Mbacke Gueye ba moment bi ñuy auditer entreprise bi di xool koom bi fu mu toll ak fan la xaalis bi ñuy perte jógee ND mi ngi déggoo jabaram moom Serigne Mbacke Gueye ngir tëgg seeni pexe. avant ñuy porter plainte tamit ñu xam ne moom ak sunu soxna bu mag. ñu xamne mom ak suñu soxna bu mag dañuy déggo dañuy waxtaan dem ba xamne mom jëndal na soxna ci téléphone portable bo xamne man xawmako jëndal nako ko puce expresso bo xamne man xawmako ñom ñaar ñu ci déggante ba paré tout le temps ndaw si diko laaj ndax waji amul ben changement ci yow ba paré ci biir audit bi ñom tout le temps dañ doon waxtaan tout le temps dañ doon waxtaan ndaw si di laaj ndax mais Serigne qui Gueye li ko sauvé mooy yàkkamtiwul woon mbir yi ay soupçons dafa dajale preuve yi mu yoroon yëpp moo xam audit bi def ci entreprise bi muy un milliard ak lu teg ak conversation yi nga xamante ni mi jabaram. la jël section de recherche tax ñu jàpp ND ak jabaram bi doon section de recherche si plainte bi na fa. bi ñoom bi ñu paree ci seen i enquête dañoo ñëw bureau fii jàpp si comptable bi yóbbu fi lañ ko fekk mënate ko yóbbu ko deux jours après xaw ma une après ñu ñëw jàpp si madame kër ga lañ ko fekk jàpp si ko yóbbu ko. mais lu doy waar ci dossier bi mooy waa ji jàpp muy NDD ci chef d'inculpation yi maanaam tuuma yi ñu teg ci ndoddam dañ ci boole li ñu naan complicité maanaam luubalu xaalis bi dafa ko moom kese dafa am ku ci àndal te loolu ñëpp xam nañ ko mooy jabaru Serigne Mbacke Gueye mais ndaw si finalement dañ ko bayyi te takk der yi xam nañ ni moom moo complot ak ND conversation yi yëpp yor nañ ko. ah bi ñu defee quelques jours commandant bi woo ma ma toog ndaw si toog mu woo capitaine Touré capitaine Touré toog mu ne ma sa jabar sa alal takkiwu ci laalewu ci te boo amee règlement de compte booy réglé ak moom ngeen defee ko kër ga. par exemple mel ni kon moom commandant bi moom moom dafa am règlement de compte ak man. te man bi may ñëw foofu di porter plainte ay preuve yu leer laa indi man bi ma ñëwee ñoom dañ ne ma yow dangaa togg ba pare yow danga ñoo jox rek ne ñu lekk leen parce que lépp indil nga ñu ko loolu lañ ma wax def enquête ba indi ko kon xaw ma nag li xew li xew laa bëgg a xam lan la. donc ku dégg ni muy waxee nga xam ni dafa jaaxle gis na ni dossier bi bu buñ ko siiwulul ni ñu libéré jabaram bi nga xamante ni complice la ci mbir mi noonu la ñu nar a libéré ND bi nga xamante nii donte mi ngi ba tey kaso mais yoon àttegu ko ba tey kon bu ñu sàgganee dinañ ko bàyyi ndax ku ne xam na Sénégal suñu yoon ni muy doxee boo amee bralon am ñu bootu sa ginnaaw am ay ponkal yu la wër doo yàgg kaso gis nañ fi kaawu ñoom Dame Amar six mois la leen tëj alors que lu bari lañ tegoon seen ndodd benn jëfandikoo si neebar ñaar violé loi couvre-feu ñetteel bi di ñàkk taxaw ku nekk ci diggante dund ak dee mais gis ngeen juróom benn weer la leen tëj bàyyi la ñu dem ndax lan fa ñu bokk dañoo am doole kon ni ñu defee seen i pexe ba ñu libéré leen bu ñu moyuwul kaw Serigne Mbacke Gueye bii nii la nar a mujjee ndax amul ponkal yu nekk ci ginnaawam jabaram ak ku naan NDE lañ jàppandoo bàyyi na jabaram waa ji moo ci topp bu ñu moyuwul moo tax dossier bii ñu def ko suñu yëfi bopp ndax bu fekkee ni Sénégal ndaw bu nekk ci yoon ñu sàkkal la pexe kañ la suñu réew di développé wu bu ngeen suivre parcours waa ji yëpp état mosu koo dimbali dafa taaba taaba di ñafe ba créer entreprise ngir participer ci liy jëmale réewam kanam créer ay emploi kon ngalawaay nañ ko protéger aar ko ndax lii bu daloon homme d'affaires yi ñu xam ci biir réew mi ñu mag ñi Sénégal yëpp daañ ci jot parce que ku ci nekk investir nga ci ay média moo xam télé rajo wala journal kii nag moom benn média neewul ci ginnaawam amul doole kon mbir yi na siiw na tasaaru fépp ba ñëpp xam ne ñoo ngi soofantal problème mu kenn ci doomi réew mi muy ku ñu war a jàppale. il faut yalla dogal na entreprise yu magi nek senegal yep damay liggéey ak ñom te depuis un an mi ngi ni ma ngi tok fi liggéeyuma depuis décembre 2019 avant muy joggé Paris yek yek affaire bi bima ñëwé ba légui ma ngi ci di dox kenn jappalé wuma ci mako dox suñu borom dimbali ma xamal lepp sama bop musuma génn senegal sama premier génn senegal sama xaliss la jël dem bitim réew jënd marchandise indi ko te créé na ay emploi te ay père de famille ñooy liggéey fii di si daan seen wërsëg kon benn saay-saay boo xam ne dañoo yaakaaroon ne bokk na ci jeunes yi ñu war a dimbali ñu jël ko mu ñëw ñu nekk association malfaiteur bu garaaw bëgg a détourner sama xaalis man loolu laa mënul muñ loolu laa mënul seetaan looloo moo waral sama génn bii. fii nag Sénégal wax bi yomb na des fois nit ñi da ngay wax ñu ne dañ lay jàppale dañuy def nii dañuy def nii mais après doo comprendre. do comprendre da ngay wax ak nit tay suba mu changer do comprendre do xam li xew mais suma waxe ak senegal senegal yep xam li xew kep ku nek senegal xam li xew dinañ xam en tout cas ñi ngi sétane sen dom bo xamanteni tay fu nek mënon na fa suma neexon jël sama njabot yep dem fu mom neex ci aduna bi mun naa fa dëkk parce que fu ma bëgg dem tay tay tay tay tay bala guddi ma dem fa suñu borom defal na ma yombal boobu mais suma toge fi di liggéey créer entreprise di créer waat di créer waat entreprise bu war a liggéey liggéeyloo ay nit ñu bëree bëree bëree bëree bëri waruñu seetaan ay benn malfaiteur war a dal sama kaw te li ñu gisagun rek la mooy un cent vingt millions loolu la ñu gisagun ñu ëpp na loolu. kon nañ ko dimbali taxawu ko ndax buñ ko seetaanee mooy seetaan nañ avenir boo xamante ni li mu mënoon apporter Sénégal lu bari la lii nag moo tax kenn wulatul kenn ci biir mi lii moo tax yu Ndour jël GFM jox ko doomam muy Birane mu géré. li mo tax babakar Ngom jël Sedima dénk doomam Anta Ngom li mo taxone dem ci yalla Aliou Ardo Sow jël se denk ko domam bi nan Umar Sow parce que da ngay wolu jambour jox ko se lepp ndeke mi ngi pa ka ngir yakal la mais boko joxe sa dom da koy leer ni mbirem la moko mom bu ko yàqee bopam la yakal parfois ñuy reprocher yene borom xaalis yi lan mo tax duñu investir ci biir réew mi créer emploi mais yu melni moko waral da ngay recruter ben way denk ko se lepp am ci mom confiance ndeke mom mi ngi pa ka bi lay rendi te sénégalais kese lañ ko ñemee def gars yi li ñuy truand yëpp yabuñu tubaab yi ku ci tubaab recruté ci biir réew mi dangay ngay daw safaak marwa di xëy waxtu di wàcc waxtu di liggéey comme ni mu waree mais bu fekkee ni seen mbokk sénégalais la uli ko ñu dooleel ko xam ne kii doomi réew mi la mais dañu lay teg bët di fooye sa liggéey di la yàqal ba entreprise bi dem fayit lii mooy problème mu Sénégal daf ci am ñoo xamante nii sérieux wuñu mais dossier bi ñi ngi koy topp amaana dañ si dellu si waat ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf. dafa am ñu nekk seen ginnaaw du ñoom rek dafa am ñu nekk seen ginnaaw parce que ndaw si biñ ko jàppee neen taxul ñu bàyyi ko am na lu tax ñu bàyyi ko li tax ñu bàyyi ko nañ ko gëstu dinañ.